salaamaaleykum mbok internet euh, iGFM point sn tey dañu am mbégte kontante di dalal euh, ki nga xamante ni euh, moo di Adam Sène donc tey occasion la ñu indil leen ko ci single boobu nga xamante ne moom la génne def ko clip dama war a dosé donc tey di ngeen xam Adam si lan la nekkoon professeur espagnol bi mu nekk ndax bàyyi na ko wala bàyyi ko ndax mi ngi def ñaar yëpp loolu yëpp tey dinañ ko xam donc Adam di kontaan ci dalal biñ la dalal di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. Salam alaikum. à nuyu internautes yi Sénégal diaspora je lay nuyu remercier IGFM bi m'inviter ok y'a relax. Bah oui bah oui. def simple. def simple rek xam <laughs> Adam si lan la que nañ et tout. waaw xam nga affaire yi comme ni à chaque fois ku su sago mais man damay am pour habitude dara après dem que puisque musique rek damay euh, en même temps donc avant ñu may gis ba promotion après comme on dit. <laughs> D'accord. dama doser koy doser temps doser yi na <laughs> son bi du pour man spécialement mais pour ñëpp pour toutes les personnes pas spécialement mais jigen yi nga

luy xew léegi buzz sonaluma trop <laughs> donc mooy euh, mooy loolu bu positif waaw pourquoi pas mais euh, bëgg buzz coûte que coûte ba tax may gi nekk di wane wu tout le temps c'est pas c'est pas trop mon truc moo tax damay toog rek lu ma génne lu ma si am muy loolu Mhm. Euh, en général, yan thème ngay développé Alors, euh, je suis déjà très romantique, <laughs> j'adore l'amour. <laughs> Donc je suis woy euh, et récemment a une série saint TV, Belle-mère. Donc ma générique bi, ma parce que c'est <laughs> Euh, peut-être du sen tayuñ ko jalousie naturelle la dañu bëgg incompréhension donc si woy bi ma di ñaan vous leen ngir yàlla jàppale ma bul yàq sama sëy bi du du dara mais juste pour ñu xel

touché sama ngoro moo yàq sama sëy patati patata donc voilà après mané, waouh. donc j'ai j'ai euh, on a bien fait de sortir cette série parce que doon man rek ñe ñoo ko après sentir ma man ma ma mais jàppal c'est une réalité sénégalaise et ça touche beaucoup de femmes ok euh, man au début bu ma cette seetaan série bi parce que dama koy année je pensais que Khadija déjà ko waaye parce que dafa mel ne voix am la ñuy waaw man je pense que loolu dafa ben genre effet psychologique c'est nit en fait comme mon euh, mot joué rôle ki opprimé si biir si biir kii c'est si biir kër

Wasseri bi waaw xam nga man je suis euh, très active sur euh, Facebook légui surtout ben groupe bu ma no stress retane ba tas maa len di nuyu bu baax sama gaay yoy. <laughs> Ben groupe bi nga xam ne dafay nekk comme niñ ñu ko tuddu retane dof dof lu affaire yoy. dañ dem ba nek ben famille en fait di demalante di créer ay événement et tout léegi nag euh, même woy bi ñom ñoma dolel parce que dama commencé timidement parfois mo dougal ay vidéo et tout mais ça y ma dougal rek ñu partager naan da nga wara def li nga wara def li après ba jour un groupe d'amis bu de fofu, nous, sept si contacté man dañu am ben série bu ñuy waja a def te mën lañ ci sentir ils m'ont montré le teaser on va dire le scénario expliqué ma en quelque sorte après j'ai compris après mané ok et euh, ñu dem jox ma musique bi en une nuit on va dire j'ai écrit le texte donc voilà je vais une une nuit Non, non, non, non, non, non en fait. inspiration bi non, non, non, non, en moins de 24 heures. Euh, man je xam donc ma après au lieu may attaquer mm-hmm. belle-mère am ñu si gis seen bopp wala di ma bañ wala affaire yooyu naa jéem a xool nan lay defaree affaire bi ba kenn du si mer mm. après ma toog xalaat euh, yàlla jàppale na ma dama jàng tàmm naa def rédaction tàmm naa def dissertation bind naa ay mémoire donc xam naa nan lay euh, defee approche pour def benn thème après noonu laa xalaatee ma ne léegi ma tànn ay mots yi nga xam ne dina toucher nit ñi sans pour autant euh, voilà quoi ñu ñu heurter ñu si gis seen bopp et tout même ku bonoon sax su ko dégloo dina xaw a même sous que vous voulez ni sous que vous voulez ouvertement dina dina ko def euh, ben conscience cadre de conscience donc voilà non non la affaire yi dikkee rek ma ne bon naa ko def soxlawu ma blessé kenn wala viser kenn. Euh, yaakaar naa ni peut-être que belle-mère yi euh, dégg nañ affaire bi bu baax mais du ñëpp parce que fi ngay gisee ñu bon non ngay gisee ñu baax mais juste que ñu xamné que ki ñëw ak sa doom koku dafa ñëw rek pour yokk dal mais du ñëwul pour dindi li fi nek donc ñu gis né ko souvent da ngay way amour amour amour est-ce que tay jotul nga way lénen bien sûr euh, absolument comme déjà je suis féministe donc la cause féminine daf ma carrément donc il y injustice une injustice qui actuellement au Sénégal vous euh, ma kenn wax rek non féministe c'est malsain patati patate non même pas il y a qu'au Sénégal que le féminisme est euh, comment on appelle ça péjoratif non c'est pas pour ça dañuy juste rek euh, góor ñi li image bi ngeen yaakaar jigéen du lol yéen li ngeen mën ñun mën nañ ko donc ak yenn pratique yi comme lu lu si mel excision ay à bannir donc loolu yëpp mi ngi euh, projet pour l'album euh, bi ma bëgg Inch'Allah. Inch'Allah. C'est l'amour ok euh, sa amour ci musique fan la Je ne peux peux expliquer man je pense que je dois aller, parce que je suis cœur ken ken du je donc je <laughs> ma nekk euh, doomu enseignant et tout donc je rek lañ ma santé. mais daal dama teel a bëgg musique certainement c'est c'est inné. Donc, may toog di way je me souviens Certainement dama naa tout le temps du yoro wa sama papa hey hey noppil noppil déggal koñ bi yëpp ay xale lañ mais yow rek lañ fiy dégg deen noppi donc non, la mon ñëwee may dem ba au début je n'osais pas hein. ba un ben, jour ma dem suñu école avec mes copines dañuy toog di way léegi ñom suñu daan dañuy wuy yu dañ koy génn dañ koy dañ koy mokal après man su ko defee dañ ma don impressionné ma dem làqatu man tamit mokkal su ma ñëwee doser leen wéy non. après ñu naan yo tu chantes bien affaire yooyu donc non la commencé léegi ñu commencé di ma fital nan ma ay fusco suy am mooy euh, comment on appelle ça les les fêtes euh, culturelles mm-hmm. scolaires suy am il faut nga bokk après ma commencé non, mu jigi ma dem ba Saint-Louis Euh, école bu moomee kuy def sa ouverture du foyer mën ngay invité donc voilà noonu la demee ma dem ba université aussi continuer fa di ko def di ko def ba voilà ba tey jii ok euh, sa famille jàng rek lañ la santoon nga bokk famille enseignant et tout est-ce que au début yomboon na ñu épaulé la si nga xam ne def pas du tout wax dëgg yàlla sama papa musul d'accord honnêtement moom li ma doon wax tout le temps mooy euh, même fekkee da nga bëgg a woy donc jàngal ba am say diplôme ba pare soo soo paree nag lu la neex nga def mais soo jàngulee doo am sécurité parce que comme nous le savons au Sénégal il y a pas une euh, industrie musicale la musique ne paye pas donc mu ne ma jàngal ba sa diplôme bam am sa métier léegi nag su la neexee nga dem def leneen au mois même fekkee sax da nga def musique bi ça marche pas fekk am nga say diplôme di nga mën a dem defi leneen Okay, donc nga suivre nga li nga prof espagnol ñoo la influencé wala yow ko bëgg nga def ko. Ah, dire que influencé parce que tamit prof d'espagnol la papa ak donc voilà ma ci univers bobu espagnol rek dégg am ay espagnol et tout euh, étudiante aussi mu commencé di Espagne pour ay linguistique comme ça mo dugg affaire après bi ma yeggalee sama jàng ma dem déposer pour euh, enseignement après à école normale et tout ba mu ngi nii <laughs> est-ce que vous avez une mère de famille femme au foyer euh, euh, nek prof espagnol une musique comme comme ni ñu musique bi dafa fiir est ngay que vous yëpp waaw bah, métti na trop li ñu wax c'est vrai ah dafa fiir moo tax d'ailleurs duñ may gis lu bari sax mu ngok parce que da mm. ngay jangalé wara topato sa dom euh sama borom kër maa ngi koy sant moom macha allah dafa compréhensif même si on ne vit pas parce qu'on moom on ne vit pas ensemble mm. euh nekul fi mais de temps en temps dañuy gisee man may dem wala mo mu ñew mais wax deug Yalla yombalal na ma lepp sinon maa ngi def lu ma mën pour euh, benn bañ a yàqal moroomam. Euh, nga defal ñu sa bref parcours kañ nga commencé musique Armelle alors man on va dire que bi ma njëkkee sama prix musique ba ma ngi doon def C2 je pense c'était en 97 léegi benn xaw moon sax di dama mën a wéy de ma ñëw rek noonu di di wéy benn concours à l'école après si laa njëkkee am prix bi euh, mu jigi ma dem ba muy li ma doon expliqué sànq dem ba école commencé di wéy di wéy di def noonu di toppandoo waale Viviane ñëpp di ma wooye Viviane 2 à Saint-Louis et tout après may def ay featuring ak ay rappeurs moo ñu dem nag ba ba ma pare université am na benn moment bu ma marqué woon toog ben pause bu marqué pardon top des musique des dara ba 2015 mané non man réellement donc quoi après euh, mané commencé ma commencé vidéos YouTube nit ni di di après ma commencé def ay cover aussi ba suis bon comme gars pousse di pourquoi pas ma def carrière non commencé. et lan ci euh, métti na parce que ba fi ma lay wax je travaille seule. autoproduction laay def awma comment ku produire mais ça va je ne me plains pas parce que comme on dit yàlla yàlla bay sa tol. Mm. donc de manière que di daw seen gannaaw tout le temps tout le temps ay jàppale ma ba ma xoolee affaire yi xaw de guerre, mais bon man maay maay maay plongé sama bopp quoi am problème léegi lu ma si fekk rek mu nekk bénéfice. Là, moi, c'est style de musique. alors man je fais du tout de mes <laughs> woy donc je peux pas dire euh, wood music parce que wood music les lay lépp lay qui euh, euh, comment on appelle ça yëpp lay bolé. mais man y a foo ma où on woyu là, en fait voilà parce que dans dama tàmm di déglu lépp moo tax voilà mais nom opéra Bon ma kenn wax opéra <laughs> D'accord. Nous ñu bëri euh, wax euh, Adam euh, dafa toy dafa jongama machallah. est ce que nekul frein le fait que aussi tu es marié pour nga mën évoluer ci musique bi parce que vous avez jëkkër tamit nek ci musique bi jongama do dem dé. merci maa ngi lay remercier bu baax question parce que c'est très important li ma mën wax ci lool moy amna ay talent yu bari yu sénégalais di perdre ndax lool. parce que da ngay nekk jigéen marié rafet war way ñun nga dégg nit ñi dañ ma koy wax ouvertement mm. naan ma xamoo li ngay raté mënoon nga si am ay millions looy yàkkamte di sëy mënoon nga profiter si musique bi mais pour man loolu loolu yàqalul kenn dara moi tax dañuy gis parfois yenn jigéen ñi pour euh, mën a dem sax dañu obligé di di di je dirais pas obligé peut-être amour mi ngi dit di mari ak seen producteur parce que le rek moo leen siy mën sinon gars yi dañ lay à gauche et à droite léegi c'est vrai frein là parce que loolu dama koy dit que faut toll moo mënoon nga ba si kanam parce que mon na am ku se gis bëgg la bëgg def ay millions si yow nga am jëkkër non c'est pas ça en fait c'est pas ça donc nous respectons, respecter si que la musique c'est un métier comme un autre donc mën normalement sans pour autant voilà nous, nous ay nous, nous pour man je sais pas comprendre Malène. dañu peut-être un intérêt financier Ramener son suñu liggéeyee ak voilà former quoi. su aussi réussirait. Nous si mais pas qui parce que voilà da nga am pour man c'est pas intelligent voilà c'est euh, ce ak euh, parce que da gis produire euh, purement professionnel pour moi, nga am nga am parce que bu féké yow produit nit bi ngeen donc vraiment c'est dommage di wax que du ñëpp tamit ku duñ ko donc évolution musique sénégalaise alors, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. À Itan, ça marchait super bien. Mais au cours de ces dernières années, dafa mel ni dafa nekk benn période de latence je ne sais pas lan moo andee loolu ñëpp a ngi góorgóorlu pourtant ñun dañoo bari woykat yi dañoo bari yàlla boo dem si benn endroit ba gis chaque jour woykat bu bees après dama sama papa mosama ko wax nee na ma dafa tourné xool ma ne ma yow bëri ngeen si dëkk bi de mais lu ma comprendre lan la ñuy amee loolu yëpp si ay woykat ba pare amuñu industrie xoolal suñu defoon comme Nigeria par exemple xoolal fu nekk la ñuy jaay seen musique parce que foofu promoteurs yi ou bien les producteurs dañu gëm li xale yi di def ñu leen di yëkkati te loolu tamit dafay euh, bokk si liy jaay sa dëkk et tout et tamit dañu dem xëy na tamit euh, religion bi

Masha'Allah, moo nga ah, <laughs> donc euh, est-ce que di temps mais mm-hmm. mais est-ce que ça t'arrive ah bah oui su ma bëggee lekk comme dama bëgg dama foqale gis sama vous yi <laughs> su ma bëggee lekk neex may toggal sama bopp wax dëgg yàlla mais nag su ma mm-hmm. ba sonn temps là je commande voilà comme ni mais am nga vie de famille ça t'empêche pas de bah non du tout du tout ouais mm. sa passion vous mettez trop d' accord euh, tey euh, ban message ngay jox euh, jeune fille yi nga xamantene gis nañ lo bëgg la. après bëgg évoluer ci métier bi nga nekk. waaw luma ma leen di wax mooy ñu gëm seen bopp te ñu bañ a yàkkamti te fekkee ñoo ngi jàng aussi ñu dem def seen jàng ba mu jeex parce que moo mooy priorité parce que soo demee ba yegg si fii rêve am rêve baax na de wax dëgg yàlla mais mën nga dem ba ci biir say rêve du réaliser wu mais fekkee fekk na la nga am ay compétences dina la jàppale soo demee nga mu jël say diplôme mën a déposer def beneen liggéey donc loolu rek laa leen di ñaan bu ñu yàkkamti elles sont des reines nañ gëm seen bopp donc voilà ok promotion bi avez a déjà fait. Wow, manque fille déjà yow commencé euh, donc démb nga suis clip invité nga ma il y a une invitation il et tout mais il euh, y a aussi mes amis sur les réseaux qui qui n'arrêtent pas de partager donc depuis hier je euh, ngi jot ay félicitations je dois dire. donc voilà y a dina dem. d'accord c'est un projet. alors moi, comme les ma wax c'est vrai que. mais à quand l'album. Lola, laa en fait <laughs> fii bëgg avant 2019 Inshallah, ma ma au moins me proposer un moins album parce que c'est plus euh, professionnel par exemple à l'extérieur ñu la au moins je pourrais dire que album mon album. donc voilà c'est si yooyu laa nekk

danga war bouge bouger ba madem dem déranger bi ma pourtant yo la choisir ga di ma ba dépérir kenen na ma lolometina langa maifatali nausosufiwa yon rechu oh rechu da faiwes oh damawara doze tekchi lubu mane hebonde baby oh دما وردو زي يومي